réew mi 24 TV mbégteeg bànneex la ñu am saa su nekk rek ci topp bi nga xamante ne rek yéen a ñu koy topp ci site internet bi di réew mi 24 TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy door rek criminalisation homosexualité ci biir réew mi ki nga xamante ne moom mooy honorable député Cheikh Thioro Mbacké daal dinay tontu nag kii di Omar Youm mu nekk tontu boo xamante ne rek jagleel nañ ko kii di Omar Youm mi nga xamante ne rek jamono ji moom nañ moo nekk di joxe leçon ci lu ñeel nag li nga xamante rek moom mooy wàllum góor jigéen ci biir réew mi te moom ci jëmmi boppam rek rek nekkoon na président bu parlementaire Benno Bokk Yaakaar maître Omar Youm mi nga xamante ne rek dafay daal di sàkku rek ñu criminaliser lii di homosexualité kii di Cheikh Thioro Mbacké daal di nag tontu lu mel ni lam ko daal di wax moo dina nag lu tax moom ci jëmi boppam boppam ba mu nekk président groupe parlementaire yoroon majorité bu mat sëkk lu tax rek voté wul loi bi ñu dippee criminalisation criminalisation homosexualité nek ay laaj yo xamantene rek dal dina koy def neena dal mu ngi koy fàttali bu fekkee ne mémoiram dafa xoos wala dafa tour wala moom ci jëmmi boppam rek dafa bëgg et sénégalais yi ci kàddu yi nga xamantene dal dina koy yëkkati te moom ci jëmmi boppam rek moom moo bloqué woon boobu les lois neena na moom ci jëmmi boppam rek ndax daal dinay xalaat dir bu mu nekkee ci commission bi nga xamantene ne moom moo ñeel commission parlementaire bi nga xamantene rek mënoon na ca débattre mbir mënu mel waaye nag moom défendre ko benn yoon ndax nag boobu les lois da ko dal di bloqué lu tax rek régime bu yees bi daal di ñëw nag mu bëgg rek ñu criminaliser lii di homosexualité te régime bi nga xamante ne rek jamono ji amaguñu sax majoritaire foofu ci assemblée nationale dina daal yëf yu ñu mel daal reetaan dëgg rek la ko jàppee kii di monsieur lu tax moom ci jëmmi boppam rek amul benn leçon boo xamante ne rek war na leen ko jox ndax nag euh, ignoré sax kat yi nga xamante ne moom lañ wax waaye moom ci jëmmi boppam ba mu nekk président bu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar moom moo daal di woon bloqué boobule loi bu fekkoon ne moom ci jëmmi boppam ragal ak tàppetam rek euh, daal di wul woon koy xeñ benn yoon nag boobule jëf ko noonu lii di homosexualité nag dinañu ko criminaliser fii ci réew bu Sénégal ndax jamono ji débat bi nga xamante ne rek nit ñaa ngi ko ci wax ko noon nag du fi am moom ci jëmmi boppam daal daal dafa bëgg débat rek loolu moo tax mu daal di yëkkati mbir mu nu mel te xam na ne rek politique dëgg rek moom moo tax mu daal di wax lu nu mel ne na nag li xew ni ki ñaar fukki fan ci weeru mee e ci at li xew ci ñaar fukki fan ci weeru mars bi ñu génn kii di maître yu moom ci jëmee boppam rek moom moo mieux placé wu en tant que juriste bi mu doon formation bi nga xamante ne am na ko ci avocat ngir xam nag lii di séparation des pouvoirs ak pouvoir exécutif bi nga xamante ne rek jamono ji ñoom ñoo ko yor lan lañ ci mën mbir mu lu mel nag ci ab loi daal lañ ko waroon a jàllale waaye pour ñu jàllale ko nag faw nga am majorité boo xamante ne rek ci parlementaire bi nag la ñu daal di faro te moom ci jëmee boppam rek moo waroon a valider boobu li loi nee na nag monsieur le donneur de leçon maanaam kii di maître Oumar Youm la tax muy xaar rek ngir proposer nag ñu criminaliser li nga xamante ne moom mooy homosexualité te moom ci jëmmi boppam rek ndax sérieux na nag euh, ci laaj bi nga xamante ne doon na ko laaj ginnaaw ba mu gisee ni rek boobu les lois intéressé ko benn yoon ndax nag ba ñu woon ci nguur gi yore majorité xalaatuwuñ ko benn yoon nañu bàyyi sénégalais yi nga xamante ne rek dañ leen di yóbbu ci débat yoo xamante ne amul njëriñ tey amul njëriñ ëllëg ndax gis nañ rek régime bi ci jëmmi boppam rek ma ngay jéem euh, kent lay kattam rek ba changé nag li fi nekk mu nekk mbir boo xamante ne rek rek yu bari nag ñu ngi koy dund ginnaaw boo mu gisee ni rek ñoom ci seen jëmi bopp loo xamante ne bañ toogee fii fukki at ak ñaar mënuñu ko est ce que ñoom ñi nga xamante ne rek ñu ngi soog a yegsi te amaguñ majorité nag ci parlementaire bi rek mën nañ ko li leer ba leer daal moo di bés dina ñëw nag lii di ngóor jigéen nag dinañu ko criminaliser incha allah di kaddu yi nga xamante ne rek honorable député Cheikh Thioro Mbacké nekk vice président groupe parlementaire Yewwi Askan Wi dal dina koy yëkkati ne la nag ministre de la justice du jaaj nag dañuy àddu rek wutalikat bi nga xamante ne daal dina koy wax ne nag dinañu topp képp koo xamante ne dangaa laalee ci rapport audit yi nga xamante ne ñu ngi ko doon def jëmale ko ci njuuj njaaj sàcc koppar yi xamante ne rek askan wi ñoom ñoo ko daal di moom ne ne moom ci jëmmi boppam rek rapport yi xamante ne fësal nañ ko ñeel contrôle bu am solo bi nga xamante ne rek doon nañ ko def ci Cour de comptes nag ne na yëf yi daal dinañ leen topp képp koo xamante ne rek laalee nga ci nag dinañ la topp ci mbir mu nu met dañ koy jox nag magistrat yoo xamante ne yu indépendant lañ magistrat yoo xamante ne rek yu bokkul fenn lañ magistrat yoo xamante ne rek amuñu farfarloo ñu daal di dogal boobule décision ginaaw bu ñu gisee ne rek dinañ leen sanctionné képp koo xamante ne rek laale nga ci yëf yi di kàddu yi nga xamante ne ministre de la justice yu Ousmane Diagne daal dina koy xamle jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abone bés cloche de notification yi ngir dara ba leen a raw.